mi ngi noonu euh, altine incha allah daa ñu recevoir Sénégal dina dalal ministre de l'intérieur bu Espagne ñu bëri nag ñaaw njort ni daal ci 2023 bi lu tolloo person dañ dañu faa dugg euh, bi ñu xaymaa yi tamit 90 pour cent ay sénégalais lañ maanaam doomu Sénégal lañ ñu jàpp ni ak ñëwam nag daa war a daa nar a nekk daal loo xam ne waxtaan entre Sénégal la ak Espagne ngir delloo si leen seeni doom. ministre de l'intérieur bu Espagne bu ñëwee na toog ak ministre de l'intérieur bu Sénégal. amatu fi. waaw na toog ak fi nekkoon ndax sensé guñ ko mu ne ko yow lan moo tax sa doomi réew di daw di ñëw si suñu réew lan moo ko waral hmm. posé ko ay question ana jeunesse suba ba hmm? ak jeunesse ak ñoo non ñooñu kay bañ demee yàgg na mais kooku ministre ministre de l'intérieur a ñëw hmm. na toog ak ministre de bi mu laaj ko lan moo tax seen doomi réew di daw wan seenum réew ginnaaw bëggatuñ dara Sénégal da nga fi am sa ndey am fi sa baay suul fi sa yaay suul fi sa baay wacci seeni barab wacci seeni kër tëj sa kër gàddaay génn dëkk bi fi mu ne nii boo génnee rek am na ñoo xam ne génn nañ seen kër lu mat quinze jours yoo xamante ni si ñu demee la ñu nekk. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy fanaan si tefes. Mm-hmm. am ñoo xamante ni dañuy taxaw tabax yu yàqu ngir di xaar départ. waaw sànq la ma Serigne Ndiaye di ma wax ne ma li nga waxoon dëgg la am na si koo xamante ni nee nañ moo soxnaam ak doomam yépp ñoo dem. Mm-hmm. soxnaam ak i doomam dañoo tëj seen kër. nit ñi sax jaaxle woon ndekete dem nañ. àgg nañ ba àgg nañ. alhamdulilah. léegi nag ñooñu doon tëj seeni kër ñi yóbbu ay natti jàmbur ñii jaay ay oto taxi yi jàmbur ñi ñii tirian ñii yóbbu ay avance jàmbur yi maçon ñii yóbbu ay ay lal yi leen doon defarloo ñooñu ñëpp dem fas yéene liggéey fay nga indiwaat leen da indiwaat problème société bi. <laughs> problème bu nga indi sax dañuy yóbbu ay avance waaw kooku nag boo ko indiwaatee. problème ngay indi société bi rek. wagg dëgg ndax bu ñëwee duñ fa xajaat duñ fa xajaat te buñ fa xajaat it xulo xeex rek lay doon sama lal ba joxoon naa la avance sama lal ba lu tax nga jaay ko sama sama taxi ba lu tax nga jaay sama taxi <laughs> yooyu nag ngay gis problème réew mi Sénégal yëpp ay problème lay <laughs> xanaa aali jubóolu ñu rek xanaa aali jubóolu ñu rek waaw ma la jubóolu waaw ana sama lal la sama avance u ah bâtiment bi ma la jox na avance ba dem nga ak moom après waa ci fitna lay nekk loolu léegi léegi problème yooyu nag nga bëgg leen a négocier di a indi réew mi problème léegi li man kay li mën a nekk kay mooy ñoom ñu waxtaan eh. naka la ñuy def ba bàyyi leen ñu dem liggéey d'accord mën a fay seenu fay foofa ñu bàyyi leen ñu dem waaw nañ bàyyi ñu dem ginnaaw sàggan nañ bañ génn kay hmm. nañ bàyyi ñu liggéey liggéey doo nga leen tax a jóg ku si am da nga dellu si d'accord hmm. alaaji hmm. altine de la fiy ñëw ñu bari nag jàpp ni daal ak ñëwam day concerner li nga xam ni mooy quatre-vingt-quatorze personnes yi nga xam ni wala quatorze mille te Sénégal ñu ba xam nga li Assane wax ba deex na trop macha allah. waaw mais xam nga leneen li nga xamante ne bi moo ne. Euh. leneen nga gis sax nit ñëw ñu ne dafa yenuy daalam dafa am dépression fekk du mmh. dépression mais. Mmh. Euh, da faaw mu dof dof lu ngir rawale. Hmm. li mu defoon ba dem. Ah. parce que euh, parce que. <laughs> gaa yi naan géej ko jàpp kii bii muy nang na fekk dara dalu ko mi ngi doon coñ maanaam dafa jëloon xaalisu jàmbur dem te bu fi nitee ñu yóbbu ko ci kaso bi. Oh, donc mu doonub dof <laughs> xam nga yooyu yëpp dafa nekk mbir yoo xamante bi ay jafe-jafe la. Eh. yoo xamante ni bi euh, am na ci jamono ji ñu toll nii te non seulement. Hmm. Euh, dañoo dem mais aussi tamit dañu bloqué réew mi. Hmm. xam nga bloqué bi ñu bloqué réew mi xam nga mooy lan jamono ji ñu toll nii am na ñu bari ñoo xamante ne bi wóolootuñu jox ñi nga xam ne ñi ngi liggéey avance parce que xam nga lu tax dalul xel parce que da naan nit ki bu ma koy jox rek mën naa dem parce que am na ñoo xamante ne bi tey problème yooyu mooy seen problème maanaam joxoon nañu kenn li asan wax am na menuisier bu ñu joxoon wala kii bu ñu joxoon wala koo xamante ngi joxoon gi daw naag bagage dem na yoonam. Hmm. Euh, léegi bàyyi na fi ay problème hmm. waaw donc borom kenkaay waaj yu bari am na yu bari yoo xamante ni bii fi mu toll nii. ñenn ñi hmm. jaaxle nañ parce que. dañ ñi doon liggéeylu dootuñu liggéeylu ñi ngi taxaw léegi ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi toog fii bëgg liggéey am nañ problème parce que nit ñi mm-hmm. wóolootuñu mm-hmm. pour yëkkati xaalis jox leen mm-hmm. donc léegi da ngay gis ni problème am na problème bu rëy mooy li nga xamante ni mooy li am léegi nag euh, ministre de l'intérieur xam nga lii dafa mel ni lu ñu dundaat la parce que dafa mel ni lii dafa amoon na fi euh, ci jamonoy Ablaye Wade bi booy demee Espagne après defe naa ministre de l'intérieur bi ñëwoon na fi am na ku ñëwoon ku jógewoon Espagne am na benn autorité bu ñëwoon jàkkaarlook ñi ñu amoon lu ñu waxtaanee. bañ amee lu ñu waxtaanee ba ñu amoon xaalis boo xamante ni bi duggoon na. Mhm. xam nga damay ragal ñu defaat noonu defaat même business bi. Mhm. indiwaat booy yi te ba noppi dara du dox. waaw parce tey jii ñoom. ñenn ñi li Assane wax dëgg la de bu bu bu ñëwaatee problème day am ci dëkk bi de problème bu mag dana am parce que am na ñu bari ñoo xamante ni demee wuñu ak seen i xaalisu boobu ci waaw donc lii Assane wax boo am na koo xam ne mu ngi toog rek di wax naan diw yàlla na ci bokk mm-hmm. parce que ah, am na te nag gars yi dañuy teel a kii dañuy nekk ci centre yi tàmbalee envoyé message sax mën nañu sax mbëllee waaw saa yi maa ngi fii ab xam nga yooyu yëpp te fi mu toll nii boo ko delloosee bu ñëwee mën na indi yeneen problème mën na am donc loolu. ñi ngi koy wax autorités yi tamit ñu bàyyi xel ci mbir moomu. waaw ñu bàyyi xel ci mbir moom parce que tamit même booy bu fekkee bi dañ leen di indi. Hmm. nañ leen delloo lañ ca defoon. d'accord nañ leen delloo la nga xamante ni bii moom lañ def bu ñuy négocier bu dee dañuy négocier ba di leen indi nañ delloo lañu ñu nga xam ne ñoom it bu ñu ñëwee mën a fay seeni bor waaye dindi indi nit jox ko sandwich ak dix mille loolu wax dëgg fa yàlla nekk na loo xamante ni bii euh, mais ak lii xew lépp tey ñu naan ñu ngi indiwaat euh, sénégalais yu bari hmm. am nañu bari nee na dañuy dem maa ngi gis léegi ku tudd ku sant Ndiaye ah. nee na moom bu Ousmane Sonko nekkul candidat day dem non loolu loolu moom loolu moom. Ah. mu mel ni saa yu ñu indi am na ñuy def. non am na ñoo xam ne moom à chaque fois moom. na yóbbu xaalisam rek. na yóbbu na wut xaalis moom nee ko nee ko na wut xaalis boppam. am na am na ñoo xam ne ah gars yi am na ñu yóbbu seen xaalis. non États-Unis bi am na ñu def cinq millions. 4 millions. waaw loolu saa ko liggéey ba am ko 5 millions wala 4 millions. waaw mais yow yaa Assane da ngay li ngay wax toujours yow yaa waxoon fii nii foo daaj ñun la daaj jëli foo teg ñu jëlee dafa yow amul foo nekkoon fii waaw foofu fépp ancien piste ba léegi waa Dakar ñëw ni la jógal ña ngi koy daaj jilaani ba léegi ña nga fa daaj mais kon cinq millions yi da nga koy teg fenn ñu jëlee la fa duñ la rembourse non non cinq millions yi xam nga ni nga def ba am cinq millions yi ba di doolee léegi mais tax moo tax gars yi cinq millions cinq millions yi ñuy wax cinq millions yi yëfi jàmbur la hmm. ah, ay natt yu jàmbur la man xam naa si ñoo xam ne seeni natt lañ teg ay millions la da ngay yónnee ku ne weer wu dee cinq cent mille cinq cent mille waa ji nga ko yónnee ba cinq cent mille daj pour mu dajale ko jox ko bo ki ko ki war a teggi mu dem yoonam ah bidaay xam naa si ñu baree bari bari. lu metti la. noo doy na waar de situation bu doy waar la fu mu toll réew mi